يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه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 bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji di ko amee fii ci 2STV bi tey jii tam kàddu gi ñëw di taxawe benn tànk ci ñaari tànkam yi te mooy tànku débat bi loolu jur ñu invité leen fi gan gu gan gan goo xam ne jaar na fi lépp benn yoon gan gi mooy ak docteur Ahmed Mouhamed loo mi nga xam ne mooy recteuru université islamique bii nekk ci Pikine dañ koy wax al kulliya waaye nekk ki nga xam ne itam commission bi méngoo wàllu ubbee ci mbootaayu borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique gi féete bët Saalum eh, Saara bi moom moo jiite commission boobu Oustaz Ahmed asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. imaam daam ñu ngi lay fay nuyoo eh, nuyoo sa àndandoo. al Amin di waale mboolem téléspectateurs yi 2STV ak rawatina émission bii di kàddu diine ji ak fu ñu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci bitim réew. Mouhamed Lamine tey am nga gan gu mag. waaw tey am nañu mbégte bu baax a baax dalal docteur Mouhamed Ahmed Lo. Euh, waaye de balaa ñu koy dugg ci waxtaan wi. Euh, dafa am ndam boo xam ne Sénégal daf ko am. yàlla jaare la ko ci moom. mooy bi jullit yi dajee Makka. problème bi nga xam ne mooy Afghanistan. nga xam ne daanaka mënatulatuñ seen bopp dara. Mhm. ñu tànn ay nit ci àddina bi. pour ñu xettali réew ma tegaat ko si jàmm moom dafa bokk si ñi àddina bi tànn pour mu dox foofu jàmm indiwaat ko ci Afghanistan. am na solo donc foofu alamul islami bi yëpp daje ñu tànn doomu Sénégal jox ko liggéey bu rëy loolu loolu ndamu Sénégal la. Mhm. ñu ngi ko ci félicité di ci félicité waa réew mi yëpp. Mhm. suñu diplomatie daal ci wàllu diine moom fu ñu dem dañuy respecté. yàlla ba loolu am na solo yàlla ñu wàll beneen euh, <laughs> diplomatie bi. waaw waaw alhamdulilah euh, docteur Mouhamed docteur Ahmed euh, jamono yii ñu toll nii tembe adduna bi yëpp sax mën nga ko wax waaye surtout Sénégal ñu ngi jëm ci ay tànn ay njiit. Mm-hmm. tànn njiit mbirum tànn njiit nag dafa mel ni. ba léegi gëdd gi ko jullitu Sénégalais yi war a jox dafa des cest à dafa mel ni euh, seen diine jotewul dara ak ak wàll bon loolu xam naa dañ ñëw ci biir waxtaan wi waaye ku wax tànn njiit wax kii tànn wax citoyen mhm. léegi kan mooy citoyen bu baax ci société. alhamdulilah euh, citoyen bu baax te buñ koy wax mooy doomi réew mi. ji nga xam ne mel na ni ñu bëgg mu mel ni loolu boo xoolee ci kaw suuf doomu aadama yi fi nekk daanaka booy xool ci xalaatiin yi am ñenn ñu ne daa am ni ñuy xoole doomi réew ma ja tegu ci yoon am na ñoo xam ne dañ koy xoole ci xeetu nangoo tënku ca luwaaya fa nekk am ñoo xam ne dañ koy xool ci xeetu yar ak teggiin am ñoo xam ne dañ koy xool ci participation ci wàllu développement am ñoo xam ne ci leneen wala ci leneen lislaam nag mm. te moom mooy déggin wi am solo nag mm. rawatina ci réew mu mel ni sunu réew mii mm. ak fu mën a doon sax eh, ki muy tudde ku baax soo ko bëggoon tënk ci baat bu gàtt da ngay wax ne mooy ki nga xam ne defar nañ ko ba mu baax mu mën a defar fii nu nekk defaraale fële nu jëm wala nga ne mu mën a defar fële nu jëm defaraale fii nu nekk ndax defaru fa nu jëm ga mooy ga gën a am solo kon gii lañuy ñuy yóbbaale loola nag lislaam nam ko defee mooy dafa indi jumtuwaay yoo xam ne suñu ci jaaree bi ñu tuddee civisme jullit moo koy ëppale ñëpp dëgg la noonu lay yare léegi defar defar fa ñu jëm xam ne sa baat bi xaw na yaatu tuuti. Mm-hmm. léegi euh, euh, lan lan lan mooy defar fañ jëm lan la fañ jëm war a mel bañ de bañ ne defaru na wala ñu jël fii sax parce que ñu bëri fii leen gën a ñor fële. waaw dëgg la waaw. xam nga bu ñuy wax defar fii ak defar fële. Mm-hmm. daa am ñoo xam ne ñoom na fii baax rek. Mm-hmm. amuñu soxla ci leneen fii daal na baax ak moom baaxe am ñoo xam ne seen déggin ci fële mooy ngir seen alaxira baax. adduna dañ ko war a neenal seen yoon du ci nekk l'islam nag ñëw équilibre nekk ci digg bi ne la déet fii ma ne ko bañ a defar kat borom bi tabaaraka wa taala nee na dox leen ci kaw suuf si famshuu fii manaakibihaa wa kuluu min rizqihi dox leen ci kaw suuf si dem fàggu ji wërsëg jullig ajuma daf ne fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillahi wadkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun bu julli gi jeexee rek dem leen liggéey kon lislaam dafa santaane nit ki na liggéey fii ba mu baax waaye bi mu koy liggéey mu teg ko ci yoon woo xam ne liggéey boobu ci biir jaamu yàlla ci lay dugg su ko defee baaxu fii ci la foofa di baaxaale déggiin woowu nag fii kañ lay baax fan fii kañ la ñuy wax ne fii baax na ok loolu nag moom mooy émission bi yëpp sax nag bëgg nit koo xam ne su amee fii day baax kooka nan lañ koy amee maanaam nit ki nga xam ne su su baaxee moom ci jëmmi boppam dana dem ba yëkkatiku ba yematul ci ne moom mii dafa bëgg a fexe ba mbiram baax moom mhm. fexe ba mbirum njabootam baax waaye ni muy xalaate ci ñu ne ko terrain bii muy cent cinquante mètres carrés yow yaa ko moom sëñ Dramé mhm. ni muy fonke terrain boobu day dem ba terrain bi ñu tudde Sénégal mhm. noonu la koy fonke lu mu dul def ci terrain bi rek du ko nangu mu am ci terrain bële da koy da koy aar li ko ñag ku wax jëm ca wala nga xool sax mu ne kii luy tax muy xool sama terrain bi day dem ba réew mi ci jëmmi boppam noonu lay mel ci moom loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu bindee léegi euh, ba léegi yow yaa ngi ci euh, docteur yaa ngi ci mbokk euh, ki ki citoyen bi kii kii baaxal fii man dama bëgg ñu wax ma fii kañ la wax ne baax na ba pare ba ma ba ma xam fii daal xam ne su baaxee ma xam ko fii moom li koy tax a baax <laughs> mm. mooy li taxoon yàlla bind nit ñi mm. mu nekk borom bi daf ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun mm. jamono yoo xamee ne dem nañ ba nit ñi nangoo jël seen bopp jox ko seen borom mm. ñu nangu ne nun ñi ay jaami yàlla lan mm. lu nuy def lu ne it ci kàddu yàlla lan koy teg bala noo xool sax dañuy wax xool ndax fii yàlla dagal na ku fa xoolam déet su ne dagan na ñu xool su ne bu leen xool foofu duñ xool su nuy wax xool ba xam li nuy wax dagan na wala daganut su nuy jëf noona su nuy fas noona su loola demee ba nit ña wala li ëpp ci ñoom ndax ñëpp mënuñoo mel noonu nag ba li ëpp ci nit ñi mel noona da nga gis àdduna ci boppam baaxaale ndax dana dem ba ay jaamu yàlla yoo xam ne jikko yi maanaam bu dee wàllu pas-pas bu dee wàllu jaamu yàlla bu dee jikko yi ak jëflante yi nga xam ne moo war dox diggante doomu aadama yi loolu dana ëpp doole ci sunub société bu boobaa société bu laab la ñuy yor boo xam ne yàlla gërëm na ko ñu baax ñëpp danañ gërëm société booba te bu boobaa meññet mi day daal di feeñ ci askan wi c'est-à-dire léegi sa euh, euh, docteur su fekkee fii nii fii est-ce que mën nañu wax ne fii baax na su fekkee ba léegi ñu ëpp ci nit ñi dañoo wéradi ñi wéradi bu ñu demee fa ñuy fajee duñ fi fekk garab duñ fekk docteur est-ce que mën na wax ni fii baax na su fekkee ñi ëpp ci nit ñi jànguñu bu ñu demee fa ñuy jàngee fekk la ñuy garaw est-ce que mën nañu wax ni fii baax na su fekkee ne lépp loo bëgg dangay ngay corrompre door ko am xam naa sax suñ duggoon ci biir développé bi dëgg dëgg hmm. tomb yooyu yëpp danañ ci ak si benn par benn hmm. ndax war nanoo dem ba ci société bi suñ demee ba nun nu ne baax na hmm. am nañ liñ doon wut ci tabax doomu aadama ji dana jaadu nu xam lan yan jeexit lay jur su boobaa su fekkee ne société bi doomu aadama ji nu war a tabax nga xam ne noonu la war a mel defuñu ko yan inconvénient lay jur c'est lor yi ci juddoo war nañoo xam lan la waaye li nga wax nii <coughs> ngir fii baax doomu aadama ji lépp loo xam ne dañ koo aajowoo ngir mu mën a tabax fii loolu day jàppandi dafa war a am loolu yii nga tudd ci la parce que yooyu yëpp ay jumtuwaay la ndax nit ki dañ koo soxla mu doon nit ku mat ci xam-xamam doon ku mat ci wér-gi-yaramam xam-xam bi sax xawuta mën a am te fekk wér-gi-yaram gi amut waaye ñu teg ci loxoom ay jumtuwaay yoo xam ne moom lay jëfandikoo ngir mën a def liggéey bi nga xam ne moo ko tax a jóg mm. mat sëkk mm. ci wàllu jikkoom mm. loolu nit ki su fekkee ne yooyu yëpp daje na ngir mu daje yii nga wax faaw mu am jàng njàng dana am moo xam ne qualité lay doon mënul ñàkk tegu ci yoon maandute dana am boo xam ne kenn tooñ kenn wala ku tooñ kenn ñu teg la ci yoon wér gi yaram danañ ca taxaw lépp loo xam ne nag jumtuwaay bu ñuy jëfandikoo la muy fu nit di jaar ak lu muy niitoog lu muy jëfandikoo mhm. yooyu yëpp dafa war a complété ngir ngir doomu aadama ji door a man a def liggéeyam ndax ki nga yebal bëgg koo defar ba tabax ko ba mu baax mhm. daa mel ne koo xam ne danga koo yebal ci benn chantier di ko liggéeyloo mhm. faaw mu indi ay matériel teg yoo xam ne ci lay mën a sukkandiku loolu lu wér la loolu lu wér la Mouhamed Lamine dégg nga docteur fi mu duggee ci waxtaan wi kon wax nañu kan mooy citoyen bu baax mooy citoyen bu baax mooy kuy taxaw temm ci fii baax fële baax. wala ki taxaw temm ci fële baax fii baax parce que fii moo topp fële. waaw loolu la wax. léegi bi ñu ko laajee fii nan lay mel baax. wax gis nga li mu ñu wax mooy béréb lay doon boo xam ne. Mm. ku fi dëkk. Mm. da ngay am jàmm. da nga am jàmm biir am jàmm biti. da nga lekk ba suur naan ba mandi da nga jàng bu jàng jotee. Mm. da nga da nga faju bu bu bu bu boo feebaree fexe sax ba doo feebar. waaw donc loolu noo noo déggee wax boobu la. waaw xam naan ne docteur dafa delloo si. Euh, al iman bil yawmil axir mm-hmm. ak euh, euh, impact bi nga xam ne dina ko am ci mm-hmm. nit ki ni muy gën a gëmee bés penc di ko gën a waajalee rek mm-hmm. ci lay gën a baaxee loolu sax alquran moo ko wax inna alladina laa yuminuuna bil axira an siraati la naakibuun maanaam daanaka ku gëmul àllaaxira mbaax moom bu ne baax na it daanaka waxul dëgg donc loolu mooy foofu xam nga citoyen boo xam ne day bàyyi xel yàlla bàyyi xel bés kooku citoyen bu baax rek lay mën a doon. Mm-hmm. Mm-hmm. kooku li ñuy tere yëpp du ci dugg. mais li li li li ëpp solo mooy patriotisme bi nga xam ne tënk na ko joxe si exemple nit ni mu fonkee këram. Mm-hmm. loolu mooy patriote dëgg. sa kër gi ni nga ko fonkee di ko saytu doo nangu sàcc dugg fa doo nangu ndox manqué fa doo nangu courant manqué fa noonu nga war a xoolee réew mi yëpp def naa loolu misaal moomu bu ko ñëpp defoon léegi loolu réew mi àddina bi dafay dox donc patriotisme nag en réalité mooy li nga xam ne moo manqué. tey nit ñi koo gis boppam la tal. bon am na ñoo xamante ne ni ñoom pour ñoom àddina ci ñoom la yem ak seen famille. nañu am teraanga ñu baax ñeneen ñi ci def seen yoon nekkatu ci. man damay wax toujours sax ne est-ce que duñ dem ba nga xam ne dañuy tere doomu borom alal yi di jàngi bitim réew. parce que loolu tamit ci ñàkk a maandu la bokk. parce que réew mi comme kenn mënatu fi jàng. Mm. kenn mënatu fi jàng ñoom am nañu. àll ñëpp yem ñoom ñëpp yem. na ñëpp nañ yemale chance yëpp ñëpp di dem jàngi mbaa ñu toog fii. Mm, mais ñi am doole ñëpp tey seen doom yi ñu ci université yi gën a baax ñi ëpp ci euh, askan wi di alku di torox seen doom yi seen jàng baaxul ci grève la ñu dëkk ñu ne dinañu tabax patriote dinañu tabax citoyen bu baax loolu yëpp ay jéego yu ñu war a def pour yegg ci. donc donc citoyen bi moom Euh, il faut ñu baax si réew mi fii ñu toll. Mm. moom ni mu mel dëgg-dëgg. yaakaaruwul dara. Euh, docteur docteur léegi fii euh, ci Sénégal ko àdduna bi yëpp léegi ñiy yittoo mbirum doxalinu réew mbirum citoyenneté critères yi ñuy tànn ba ne kii mooy citoyen bu est-ce que loolu mën nañ koo fekk ci kuñ kii ko am diine la. c'est-à-dire li mu bëgg wax mën nañu est-ce que ñoom mën nañoo natta natt ba ne kii mooy citoyen bu baax ñu fekk kooka muy ko am diine. xam nga li nga junj léegi imaam jàng dafa war a am. jàng dafa war a am. bu ñu wax ne jàng dafa war a am mooy nit ki war naa jàng xam-xam boo xam ne dana ci mën a tabax addunaam. war naa jàng xam boo xam ne dana ci mën a baaxal diineem. boo gisee njaxas lu mel noonu di am ci lii nga wax nii. mooy noonu lu gën a bari jàngiin yi nuy jànge day topp genn wet. kii day jàng adduna. du xam dara ci diine kii jàng diine du xam dara ci àdduna dañoo soxla ay nit yoo xam ne dañuy xam fii xam fii lu gàtt gàtt bu ñu spécialisé woo ci lenn itam la ca des ñu am ci culture boo xam ne la ca des danañ ko xam xam yin woo xam ne wu leer naññi lay doon mm-hmm. euh, tànn tànn ci boppam ngir nu mën ne lii lu baax la dañ noo war a tànnal noonu mm-hmm. nag kan moo nuy tànnal lu gën a bari ci noonu euh, suñuy xalaat ginnaaw tubaab daf fee am ab cër bu yaatoo yaatu am ko ci sunu jàngin am ko ci sunu doxin am ko ci sunu jikku bu nu yeexee rek suñuy tànnal sunum réew boo wëttu nu tànn ci xalaatiinu tubaab te fekk du noona nag mm-hmm. dëgg la maanaam danoo doon am réew moo xam ne man damay wax ne comme ni ñuy waxe ne yow yow mii dangaa war a gëm ne réew mi moo la moom mm-hmm. waaye dangaa war a gëm ne it yaa ko moom waaw maanaam moo la moom waaye yaa ko moom mm-hmm. moo la moom bu ñu koy wax mooy boo xëyee ci service lu koy baaxal ci nga war a nekk da nga war a jubbanti nit ñi ci wàllu diine ba ñu tegu ci siraatul mustaqim la yàlla moom ñu jox ko ko la yonentam moom ñu jox ko ko la askan wi moom ñu jox ko ko déggiin woow yi su tasaaroo ci nit ñi su ñuy tànn ka ñuy tànn waxuma tànn sax ci fal fal nit de waaye ka ñuy wax ne kii ku baax la dana fekk kooka doon na ko wax ne yàlla nee na kii baax na ndax kat nit ñi lu gën a bari su ñuy ay nattukaay lañ yor yoo xam ne ci seen bopp lañ koy jëmale sëñ Dramé mën naa doon koo xam ne xam naa ci moom yoo xam ne yu doy waar la waaye rek saa bu ma dajeeg moom mu làmb poosam génn ah yow de sëñ bi lii moom eh, yóbbaale ko ci kër ga fuñ ko tuddee ma ne leen sëñ Dramé amul morom fekk man sama nattukaayu bopp laa yor boo xam ne amaana ñeneen ñi sax yëguñu ne looloo am ñoom ñoom lañ xam ci sañ Dramé daal mooy la ca des su boobaa dañ naan kii li muy wax fu mu ko teg mm. kon li wér te wér mooy nun fii mu nekk nii su fekkee ne dañoo bëgg a am réew bëgg koo tabax nit lañu ñu war a jëkk a tabax ba noppi noonu fii mu ne sunu askan dafa wopp loolu nag mooy li wér jëmmi askan wi ci boppam dafa wopp eh, te it nag lu mën a xew nanu mel noonu ci suñ jëmmi bopp mënunoo fexe ba am keneen kuy jóge feneen ñëw dinu defar sil sunum réew mm-hmm. loolu moom amul réew yi ci àdduna yépp di dox di développé di jëm kanam dañoo xool seen bopp teg seen plan di defar seen bopp mépp réew mu ñuy amal ak jote xamal ne luñ jariñoo moo tax ñuy joteeg yow waaye du caagi ni lu la jariñ yow <laughs> kon faaw na nu dellusiwaat xalaatal suñ bopp xool ban façon yar la ñuy yar suñ doom yi mm-hmm. ngir bu ëllëgee li ëpp solo mm-hmm. muy jom joo xam ne diine koy def ci yow jom joo xam ne mm-hmm. diine koy def ci yow mën a nekk ci ndaw loolu ëllëg ndaw loolu mën a gëm ne réew mii la ko yàlla tànnal mm-hmm. li àdduna di yaatu yaatu ak li muy bari bari daf koo tànnal fii juddul ko fi mu dëkk fi mm-hmm. mu yëg ne amut fenn fu ko gën ci moom itam mm-hmm. su ko defee lam lu mu mën a fàggu ci xam-xam lu mu mën a fàggu ci fulla ak fayda ak ci uh, ay xarañteef ay man-man ak i métier mu jéem ko fee def sotti ko ci biir réew mi réew mi jariñoo mu gëm ne réew mi moo gën a yey ci moom meneen réew mu mën a doon xam nga ne lii ñuy gis ci jamonoy tey ndaw ñi di xëy kenn ku nekk teg sa bopp sa njëy ci am réew moo xam ne dangaa ngaa jàpp ne sa teraanga foofa rek la mën a nekk mënta mm-hmm. nekk ci sa réew mi maa ngi jàng ab document boo xam ne eh, biig rek laa ko doon jàng ñi wax ne am na eh, misaal ci ambassade yi nga xam ne nit ñi dañuy ñëw dafa déposé visa mm-hmm. eh, bis bu nekk téeméer ak juróom fukk danañ ko jël ci ay demande yoo xam ne benn bu ci ne quarante mille francs te duñ ko delloo hmm. Hmm. loolu boo ko seetloo ci at mi ay milliards la ñuy jóge ci réew mi di dem ci ambassade yooyu boo jëloon ambassade yëpp nga xool lay xëy di fa dugg hmm. par at da yëg ni kon Sénégal ñoom ñooy financé ñooñu. dëgg la dëgg la li ñuy soxla ci budget si ñoom ambassade yooyu lay fay seeni salaire lay def lépp ñoom ñoo koy def dëgg ci ci yaakaar rek. te ña koy def. maanaam amuñu luñ lekk. ndax mooy ñi gën a néew doole ci askan wi. di di di teg seen një. di wut fu ñu dem ñooy jël seen quarante mille yooyu ñëw teg ko. ba àggal bu ëllëgee ñu ne la amoo visa nga delluwaat toog di di di taxaniwaat di wutiwaat quarante mille francs. loolu am na solo docteur. kon loolu sëñ daam li may daaneele. Mhm. mooy loolu ab yëg-yëg bu ne ci biir nit ki la. Mhm. nit ki dafa am yaakaar defe ne fële la tiraanga nekk. Mhm. fii tiraanga nekk fi mais lu tax. foofu la feebar bu mag bi nekk. mooy noonu danoo war a dem ba nit ñi yëg ne tiraanga ji fii ci réew mi fi la nekk. yëg ne sa réew mii nga am yàlla tànnal la ko moo gën ci yow moo gën a yey ci yow li nga man ci xam-xam ak ci man-man réew mi moo ci gën a yey dëgg la dëgg la loolu am na solo docteur mooy tomb bi ma doon posé ba léegi euh, euh, dama seetlu fan yi euh, ci ñuy wax ne dañu bëgg a yor réew mi ah, ñu ne dañuy préparer pour ñu pare parrainer leen cest à am ku leen ñu leen proposé pour ñu nekk njiit ma dégg ci koo xam ne dañ ko ne yow da ngaa am sikkim est-ce que loolu du tekki ne yow nangam nga mu mel ni kon euh, dafa mel ni ñi ñi ñu bëgg ñu yor Sénégal waru waruñoo am diine parce que kooku sikkim ba da ko askane ci diine. mu loolu moo tax mu posé question bi est-ce que kon euh, nekk mat jullit dafay safaanoo ak mat citoyen bi war a bi war a nekk président wala mu nekk. mu fal président xam <laughs> nga xam nga imam. Euh, dafa am lu am dafa am ay njommoor yu ñu samp hmm. ak njommoor mooy la ñuy samp ca àll ba ca tool ba waaw bu fekkee ne mala bi ñëw bëgg a lekk garab gi da koy séen muy gelaw mu daw <laughs> mu daw jàpp ne nit la noonu hmm. nag suñu askan yi eh, ñi nga xam ne ñoo ragal lislaam seen ragalu bopp hmm. moo xam lu tax ñu ragal ko ndax noonu ko rek mooy mooy base bi dañoo samp ay njommoor yu bari yoo xam ne dañ nu koy tiitale dina wax ne ah bu ngeen gisee ku mel nii nangam nangam bu ngeen gisee ku mel nii sooy boo ngeen ragal ko sooy boo ngeen daw bis bu yoree réew mi dana def nangam dana def nangam ba yooyu sax ci xol yi mm-hmm. su ko defee fu ñu gisati ku mel noonu ah kii kat la waajo waxoon noonu kat séminaire bañ ñu doon defal séminaire bañ doon wax ku mel nii la waxoon te kon mi ngi nii mm-hmm. kon sooy boo ñu ragal ko waaye détail yooyu man jàpp naa ne jàpp naa ne ay yëf yoo xam ne ñii koy wax sax wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, ak jaaxle la war a la war a doon maanaam ndax nit ki dafa yorub sikkim wala mbubam dafa gàtt wala dafa waa xanaa ñoom suñ mag ñi fi nekkoon euh, jànguñu seen histoire ndax xamuñu leen ndax euh, melokaan yi ñu yoroon xam nañ ko dëgg dëgg dëgg ñooñu euh, li wér te wér sëriñ Mbàkke dafay wax ne waalam bi ann xalqa lixyatin xaraam mm-hmm. taadibu man yafaluhu ala al mu ne xamal ne wat sikkim dafa xaraam te kooku mufti la woon mufti bawal gépp la woon wala bu la neexee sax nga ne Sénégal nee na xamal ne yàlla dafa xaraamal góor wat ab sikkimam te ki koy def njiitul réew ma war na koo war na koo yar maanaam war na koo teg ci yoon kon loolu doon ay yëf yoo xam ne noonu ci ci suñ aada wala suñ diine wala suñ cosaan lenn ci da koy bañ weddiwul nag ne am na ñeneen ñoo xam ne seen aada ak seen cosaan ak seen melokaan ak seen civilisation man naa doon luy bañ loolu mm. waaye nag bu nangu noonu nun comme ay sénégalais comme ay jullit ñu dugalal lu ci sun bopp ne koo dajal fii rek mu yor ab sikkim jàppal ne kooku kuy kuy lor doomu aadama yi la wala loolu moo ko tax a jóg loolu moo jaral leer tam docteur moo mm. looloo jaral leer ndax man pour man dafa mel ni affaire bi am na complot mm. est-ce que du ñun ñu ñu yilif suñu sang yi weex yi dañoo bañ ñi jub jot ci bi parce que ñaare ñi ñi ñi am diine lañ seen doon jub te fu nekk bët bu seen ñu dégg ñu naan réew mi problème ku jub lañ am problème moral crise morale lañ am c'est-à-dire crise yu jub yu jub lañ am léegi ba pare ñi ñu séentoo njub ñu leen ñu leen di gàttal pour duñ ci àgg ci boor est-ce que du complot bu jógee ci biti boo xam ne daf dañoo fas yéene ñi jub bañ a ci boor bi man jàpp naa ne sax ñi jóg fii mu nekk nii di di di xëccoo réew mi hmm. idéologie boobu boobu ñuy développé noonu weesu nañ ko ñoom ñëpp. ah ndax aw askan mooy jëm fenn kay laaj réew ma ñëw ànd ak ñoom jëm koo fa. Eh, jàpp ma ne fii mu nekk am na kenn kuy jóg di laaj réewum Sénégal jàpp ne da war a jóg di xeex lislaam mm. ku koy def doo jàll. waaye nag population bi ci seen jëmmi bopp fi ñu toll ñoom war nañu xoolaat seen bopp ba ci ay élection ci 2007. am na benn xutba boo xam ne dama cee wax ne nun de campagne yii war nañ cee seetaat suñu bopp ndax koñ boo dégg ka fa taxaw la muy wax nit ña yemu leen di dig yemu leen di dig bari na lool waaye dégguma ci lu aju ci diine ji loola ndax ñooñu dañoo amul diine wala dañuy dàkk liñ jàpp ne luñ bëgg la nun ndax suñ jàppoon ni diine ji moom lañ jiital ci lépp ki ñëw di campagne du nu wax lan la nar ci diine ji kon foofu lu am solo la mm-hmm. euh, melokaanu ki nga xam ne moo lay jiite wala moo bëgg nga tànn ko day jéem a xelale yow lu ne ci sa xel ak lan nga bëgg ku la ko defal muy répété loolu danaa leen defal nangam danaa leen defal nangam mais su fekkee yow ci sa jëmmi bopp nga xam ne yaay <coughs> askan wi mm-hmm. kenn déggul fenn ci yitte yi ngay wax ak di ko jàmm ah. ak génn di manifester ah. naan nangam ak nangam ah. sa diine bokku ci da nga naan rek noonu de suñu yoon wii dafa yàqu diggante bi nangam forage bi dafa dafa tëj diir sàngam diir sàngam ñu génne la ci tele bi nga wax sànq waaye kenn du taxaw ne suñ jàkka ji bu tawee day seen dañ koy soow noonu de suñ courant bi nuy fay ci jàkka ji attanatun ko ndoxum jàkka ji attanatun ko suñ école daari alxuraan bi kenn taxaw wu ko loolu dégguñu ko ci askan wi gisuñu manifestation ab télévision wane wu ko su boobaa dañ naan ah askan wi kat kon la leen gën a itteel mooy forage bi xaaral su may campagne ma waxal leen ci forage bi waxal leen ci yoon wi waxal leen ci santé bi waxal leen ci nangam su ko defee yooyu ñuy lim di ko répété. mooy fi askan wi toll. Mm. kon askan bi moo war a dellusiwaat jàngataat boppam. Mm. xam al muwaatinu saalih muy citoyen bi nga xam ne moo baax nan la war a mel lan moo war a doon xalaatam lan moo war a nekk ay bëgg-bëggam. Mamadou Lamine waaw point bi. waaw point bi de man bi ma dégg débat yu mel noonu sax bi ma ko déggee dama ne ñi koy yëkkati ñu ngi def njuumte bu rëy rëy rëy rëy. Mm. Euh, benn mooy benn kuréel ci réew mi ñoo xamante ni ñu ngi leen di tudd am nga dégg naa ko xam ñu ne ko sa jabar day muuru mm-hmm. ma ne loolu moom président de la république sax moo ci waroon sàkk pexe mm-hmm. moo leen waroon wax ne discours yooyu na dakk mm-hmm. parce que sénégalais yi amul benn kër booy dugg tey lu dul kuy muuru ma nga fa amul benn institution booy dugg tey lu dul ku am sikkim ma nga fa ñu ngi ci fépp te fépp fu ñu nekk royukaay la ñu fa ñaata yoon nga gis fii ñu joxe grand prix ni élève bi dàq jàng ci réew mi day muuru man maa ngi rappelé wu bii jamono Abdou Diouf am na xale bu nekkoon Rufisque. Mm. Aram Ndoy Gassama. Mm. keroog Abdou Diouf moo ko jox prime. Mm. xale bi dàq jàng ci réew mi. te muurukat la. mais léegi loolu ñooñu sa doomi réew ñooñu mbooloo mu toll noonu nga xam ne foo dem ci réew mi fekk leen fa. Mm-hmm. ñoom bu nu yëgee ne yow yaa ngi leen di stigmatiser yow ñàkk nga électorat bu rëy rëy rëy. loolu ci wàllu politique sax da ngay yàqal sa bopp. beneen bi imam njiiti réew mi nii. ñi ko wateel ci muurukat yi kenn xamul nu mu toll. ñi ko wareel ci wateel ci borom sikkim yi deuxième tour man gis naa ay borom sikkim yoo xam ne danoo woor wooru naafi la mm-hmm. wooru naafi la mm-hmm. wooru naafi la mm-hmm. ba ba dog jot ñu naan yàlla yàlla na Raïs Macky Sall jël réew mi yàlla na Ablaye Wade dem xam nga ñooñu ñooñu bu fekkee bu dee am nga nit xam nga politique da ngay fexe nooy waxaale ñoom parce que ñoo dàqoo leen jàng gënoo leen jub gënoo leen nekk ay patriote mënoo wax a wax a wax a wax a wax ba réew mi ñooñu tey da nga fiy def lu ñu fi deful. Mm. loolu sonal sa bopp la. maa ngi ci wax ak sama benn xarit ma ne ko ñoom war nañoo xoolaat seen bopp seen wax yooyu tey aéroport bii nii nga xam ne dañ koy commencé di ko tiitaroo ci ci rafetaay bi mm. baax bi. Mm. Blaise jàng président bi ko tabax jabaram day muur. Rajab Tayyip Erdogan bu ñëwee fi mook jabaram ñooy ànd. jabar ji day muuru fu mu dem yóbbu ko ci àddina bi muuraay ndigalu yàlla la léegi nag tubaab yi ak seeni taalibe ñoom ñooy jël yooyu di diaboliser nit ñi te mais xamuñu ne. li gën a bon nag ci politicien mooy sa population raw la boo xoolee réaction yi population bi di di kii ñu nangu sax ku leen dugal ci détail yooyu noonu mm. nit ki na nekk ab franc fii ci Sénégal sunu yoon nekku ci mm. na nekk ab ab ab laïc sunu yoon nekku ci na nekk ab chrétien na nekk musulman xam nga lan moo ñu yitteel engagement yi mu jël ak askan wi mu respecté ko mm. loolu mooy dëgg yow réew moo xam ne raïs bi taxaw ne ne man franc laa woon ñun dégg nañ ko fi ab Wade waxoon na ko président catholique ñaar mu am waaw léegi ñu bëgg a wax naan affaire sikkim ak sikkim loolu li ñu bëgg a wax mooy tey képp koo xamante ni da ngaa askanoo ci lislaam amuloo sañ-sañ jiite réew mi loolu nag boo ko defee saaga nga imaam yëpp saaga nga tarixa yi même booy mbubboo tarixa da ngay da ngay sóob parce que tamit Sénégal yi dañu bëri caaxaan boo waxee ñu naan gëmul mag ñi ñoom ñoo gëmul mag ñi ki gëm mag ñi topp seen digal doo taxaw xool li sa yaram xeesal mel ni golo kenn xamul lan ngay niru nga ne da ngaa gëm sëñ Bamba wala da ngaa gëm Alaaji ki gëm mag ñi kooku mooy ki nga xam ne dafay dundal diine ji teg tànkam ci yonent bi teg tànkam si njàngale yonent bi teg tànk ci diine ki gëm réew mi mooy ki nga xam ne day sonn ci alalu as aar askan wi ci lu leen di amal njëriñ loolu mooy loolu mooy mag ñi imaam maa ngi koy wax keroog sa conférence bi pourquoi ñun suñu wàllu politique gu réew pourquoi rek ñu bëgg ko commencé jàngee ci Léopold Sédar Senghor Abdoulaye Wade Abdou Diouf foofu la politique tàmbalee ci réew mi pourquoi duñu jàng Thierno Souleymane Baal est-ce que mënatu nañoo am nit ku maandu ba mel ni moom hmm. pourquoi duñu jàng Almaami Abdoul Khadir kan lu tax duñu jàng Maba Jaxu Ba wala ñoom danoo jiitawul woon état wala dañu jiitawul woon population ah, état yu gën a civilisé hmm. maandu am fa ñëpp yemoo ci ay àq loolu suñu suñu œuvre la bokk hmm. nañu bàyyi caaxaan yi gis nga muurukat yi nii ku bëgg a am jàmm ci réew mi bëgg a jëm si kanam naxanteel ak ñoom lépp lu nu soxla ci defar réew mu ngi ci ñoom borom si kim yi ay médecin lañu ay avocat lañu ay magistrat lañu ay ministre lañu lépp lépp lépp ñoom ñoo ko xamul mais euh, président bii xam na ñoom ban njëriñ la ñu am yooyu nanu bàyyi caaxaan ay tappale la jëmul fenn léeg-léeg nag nit day dem ba nga xam ne du am argument du am lu mu teg ci nit ñi muy dem ci ay détails yoo xam ne dañ koy xeet ki ñiy wax wax yooyu nit ñu tuuti lañu nit ñu suufe lañu te gis nga lépp lu loo xam ne symbole diine la muy muuraay wala sikkim wala yu mel noonu boo ci jamee benn xeeb ci denn am na bu doon réew yoo xam ne dañ lay yar mën nañoo dem ba laaj la lii nga wax loo ci jublu hmm. ay daan yu métti moo ci tegu hmm. la preuve mooy fatwa bii nga xam ne sunu maam sañ sëñ bu Bousso wax na ko ci sikkim hmm. bon mais loolu loolu wala ko moom dadul sénégalais nanu bàyyi caaxaan sunu maam yu baax yëpp amoon sikkim nag sax far ñoom daawuñu wat sikkim ñoom daawuñu watu waaw mais léegi la ñu am imaam yu wat sikkim rek léegi la xew rek waaw am euh, xaw ma <laughs> imaam lay posé bala nga posé bismillah euh, euh, dafa am ñaari mbir ah. genn wet gi dafay jëm ci mi jullit bi ci boppam ak réew mi nga xam ne dañ koo bëgg a tabax ñun nan lañ bëgg jan doomu Sénégal lañ bëgg a tabax ngir Sénégal mel nii am geneen wet goo xam ne politique la tudd gis nga politique moom boo ci xasee dugg lépp luñ jàpp ne suñ ko waxee ci yow dana doon lu lay suufeel rek sooy ba nga séntu ne des na ko mm, mm. politique da ciy gën a fés nga xam ne soo ko waxee noonu day daal di fés euh, dem ci média bi ñuy kii ko waaye ñi nga xam ne ñooy seen ñooy imaam yeeg jàngalekat yi nekk ci seen i daara ñu mel ne nun ñi ban dalee dégg loolu ñi dina ko wax kenn xamut kañ la mm-hmm. am nay jamono yoo xam ne euh, am na mbootaay yi nga xam ne moom la réew réewi Afrique yi bokk daje nañ fa Abuja bokk ci ya nga xam ne moom lañ naroon a def mooy tere muuraay mm-hmm. Union des oulémas bi yi nga xam ne ci laa nekk mm-hmm. ñoo bind ab lettre ñi nga xam ne ñoo njiiti réew yi ka ko jiite woon ci jamono jooja ñu jox ko leetar bi yëgal ko ne ko kat yéen a ngi bëgg dugal ci seen bopp loo xam ne xamu leen ko ndax lii ngeen di wax nii mbirum diine la te mbirum diine jàpp leen ne ay jullit ngeen jiite ci seen réew te xamu leen loolu yi fond ba fan la àgg ci ñoom mhm. bis bu ngeen xëyee génne ab décret boo xam da ngeen da ngeen di tere lii nit ñi muuruwul woon sax danañ xëy muuru foofu mhm. kon nag sooy bul ngeen teeylu mhm. gannaaw bi affaire boobu ca la dale ba mujj ñu ko def kon jëmmi politique ci boppam mbirum boppam la moo xam ne ñoom euh, moo xam nu ñuy xalaate ak nu ñuy defee ak ñu waaye noonu ci suñ jëmmi bopp noonu comme aw askan ci émission bii noonu war nanoo jéem a xalaat fan la ñuy jaar noonu ba tabax sénégalais bi foofu lañ jëm foofu lañ jëm ah, ni foofu lañ jëm ni docteur euh, gannaaw bi ñu xamee kan mooy citoyen bu baax gannaaw bi ñu waxee lu yaatu ci wane ne euh, nekk citoyen bu baax safaanoowul ak am diine daane sax daanaka sax ñi am diine ñooy citoyen yu baax yi léegi dañ ñëw nag pour wax nan la ñuy def ba am citoyen boobu ah, nan yan jumtukaay la diine waajal mhm. pour tabax citoyen bu baax boobu nga xam ne dana man adduna man àllaaxira dafa am ay règle yoo xam ne mhm. nit ku nekk valeur maanaam li lii soloom mhm. mooy fan la jaar ba tabax boppam ba noppi fan la jaar ba jàppale ñi ci des ndax jullit bi niñ koy tabaxee ak liñ koy gëmloo mooy nekkul di liggéeyal boppam rek ak njabootam day liggéeyal askanam di liggéeyal réewam di liggéeyal sax umma bi mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax ne laa yuminu ahadukum xatta yuhiba li axiihi maa yuhibu li kooku mooy wane ni nit ki boppam taxu ko jóg mm-hmm. dëgg la dañu laa sant danga nga góorgóorlu ba bokk ca ña baax bokk ca ñay baaxal mm-hmm. waaye ñi ci des nañ la itteel ni la sa mbirum bopp itteele sa mbirum mbokki jullit yi ci des nañ la itteel kooku ndawut benn tomb beneen bi ci des mooy nit ci jëmmi boppam daa doon koo xam ne ni ko yàlla bindee munta beru dem faw mu aajowoo nit ñi koo xam ne dangay ngay aajowoo nit ñi nag mënoo leen bañ a jox li ñu ci yow wala boog war ngaa góorgóorlu bañ aajowoo ci yow dara ndax fii mu nekk nii ak loo bari bari xam-xam xam-xamu adduna ak xam-xamu diine fa nga toog rek boo xoolee yëla wër muy bubb ma nga sol ak montar baag mbaxana maag lenn loo ci xam ne yaa ko liggéey yow amu ci kon yow ka ko liggéey ajo aajowoo nga ko bindukaay bii nga yor di ko bind ka ko liggéey ajo nga ko dëgg la kayit wii nga tiim ka ko ka ko defar aajowoo nga ko appareil bi montar bi mbaxana bi lenn lu ci nekk ginnaaw da ajo aajowoo ay nit bay jóg di wuti ci ñoom dara yëgal ne war ngaa góorgóorlu bañ aajowoo ci yow dara. ba di ko wut si ci yow. ndax kat nit fu mu toll fu nekk ci biiru askan. la mu war li mu war a posé boppam mooy ndax fii ma nekk ci sama réew mii bi ma juddoo di kër kër di kër këri ba am 40 ndax su ma fi jógewoon danaa fi bàyyi witt wala dara du changé. Mhm. su fekkee wóor na ko ni su fa jóge woon itam kenn du ko yëg dara nekku fa na xam ne liggéeyul woon. dëgg la na xam ne liggéeyul woon. Mhm. maanaam amul kenn koo xam ne da ngaa war a toog. di lekk ci meññetum réew mi te amul looy jox waa réew mi di ko jëfandikoo mhm. su fekkee ne loolu amul rek xamal ne yow amoo fi jëriñ li la fi andi woon nekkoo ci loolu moo tax nit ki war te yem ci jaamu yàlla kese daa war a góor góorgóorlu ba doon jaamukatu yàlla gëm yàlla am tawxiid am sunna am mucc ci yépp loo xam ne lu yàq loolu la waaye daa war a doon koo xam ne daa am njëriñ ci askan wi itam mhm. am loo xam ne daf koy servir askan wi ñu xam ne lii ci diw sàngam la jóge fi diw nekkul lu mel noonu boo tuut mën naa bañ a am ak lu tuuti tuuti nag baax na ndax borom bi tabaraka wa taala du xeeb li muy soxla mooy lu sell donte dafa doon lu tuuti fi ñu jaar ba tabax euh, ku baax mooy nit ki ci boppam na nite di dox ci kaw suuf rek nuroog nit ñi sol li ñuy sol taxut a nekk nit lislaam dafa ñëw ngir nit ki nekk nit dafa am borom xam-xam bu mag ñu koy wax Cheikh Mouhamad Souleymani wala Salmani ci bi mu jàngee téere bi al imaamul Buxaari tudde al adabul nga xam ne téere boobu ba mu jeex teggin yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale moo ci nekk ko jàngalee jàngee ba mu jeex dafa am kàddu gu am solo gu mu wax dafa ne bi haada al kitaabi yakunu al insaanan nee na téere bii ci la di doone nit téere bi ci la nit di doonee nit mhm. xam nga boo gisee ma ne euh, nit ki fi ñuy jaar ba tabax ko mënut a ñàkk ne ci éducation diine mënu cee ñàkk mhm. yarub lislaam mënu cee ñàkk moo di lislaam daa doonut loo xam ne li ñuy tuddoo rek la mhm. nekkut itam loo xam ne dañ koy bëgg rek waaye bi nga ko tuddee ba àggal bëgg ko ba noppi dangaa war a jóg fexe ba xam ko bi nga ko xamee ba noppi da ngaa war a jóg fexe ba jëfe ko jëfe gi doon ñaari xaaj am ci jëfe boo xam ne yow yow la concerné sa digganteek sa borom nit ki pas-pasam diggante mag yàlla nan la ko gëmee ab yonentam ak i yonentam sax laay wax akuk jaamu yàlla am nga muy def ci lu nëbb ak lu feeñ loolu digganteem ak borom yoonu yoonu kenn nekku ci waaye jikkoom yii nag jikkoom yi nga xam ne mooy aw làmmiñam buy wax li ñuy déggee ci moom jëflante ku jëflante moom fan nga koy fekk ku dajeeg moom sax lan ngay jëkk a seetlu ci moom melokaan yooyu mooy wàllu nit ñi ci sa diine nit ñi seen wàll ci sa diine mooy sa muamala sa axlaaq sa jikko loola lañ am ci yow su fekkee ne dem nañ ci am réew ba nit mën naa xëye ci këram di dox gis tableau signalisation ci mbedd nga geesu gisoo kenn nga dajji ko mm. tablo boo xam ne moo doon guidé oto yaag yépp pour ruux yi mën a mucc mm. ba doomu aadama yi duñ faatu nga geesu gisoo kenn nga dajji ko yóbbu mm. defar ci satta la génn jaayee ko ñaar téeméer <laughs> kooku ana ana civisme yaa ngi def loo xam ne ay bakkan man nañ cee faatoo ana nité ana nité mm-hmm. <coughs> jekki nga ba guddi nga jóg dugg ci armeer yoo xam ne armeer yi moo xam ay chrétien wala ay jullit mm-hmm. nga ne da ngay sulli ay nit ñoo xam ne dañ leen a suuloon est-ce que ngir lan ngir intérêt personnel boo xam ne danga nga koo xalaat ah, kee jaar fa li fekk ay croix yu liggéey bronze wala dara nga daaj ji yóbbu loo ci jublu ñu ne da koy xelli tëggaat ci leneen bu génnee jaay ko ci marché bi mm-hmm. askan wu toll foofu daa feebar mm-hmm. dafa aaja tabaxaat kon tabaxaat gii nga laaj la koy def man dama gëm ne mooy delloo nit ñi ci jàngal leen diine suñ école yëpp dañoo war a jàng diine dañ leen cee war a yar waru ñoo yem nag ci xam ko rek ndax xam gi doyut ay nit a ngay jàng euh, xam-xamub diine tey amaana sax mën nañoo nekk sax ci réew yu arab mm-hmm. bëkk dem rek maa ngi seetlu ab woykat bu siiw boo xam ne ci mu réew la dem ay gone wër ko yoo xam ne dañ ne diine la ñuy jàng ci réew mañ nekk ñii ngay def nii di photo ñii ngi jaxasoog moom nangam ci ci kaw ne nañ feeñ ànd ak woykat boobu mm-hmm. xam nga kooka du ma wax ne nañ jàng rek yam ci mm-hmm. waaye nañ jàngal nit ñi diine yar leen ci mm-hmm. ki nga xam ne eh, dañ ko jàngal diine ba mu xam ko mm-hmm. ñi yar ko ba mu xam diine yar ko ba mu xam boppam itam ndax jàpp bokk na ci liñ gën a manqué le moo xam ñi jàng diine la moo xam ñi jàng leneen la ci suñ réew mi mooy ñàkk xam suñ bopp histoire u Sénégal ci boppam ñi ko ci jàng ba xam senegal mooy lan lu néew la seen kàllaama gi ñuy làkk sax làkkatuñ ko leneen la ñuy wax koo ci laajoon ci dëkki kaw ya lan la ñuy jànkoonteel ci ay coono xamu jaaru ca kon nag lu mel noonu su fekkee nit ñu mel noonu nga ngay dundal tey ci kaw suuf ba noppi ñi nga xam ne ñoo ni ci kaw gën caa bari ay wax ñu jàpp ni ñoo ci ëpp ay culture wala ñu tuddee intellectuel wala ñu jox leen tur yi ñu leen mën a jox nga xam ne ñooñu ñoo toll foofu ñoom bu dee ci wàllu jikko ñoo toll ci di jóg di dem di di loo xam ne lañ ci jublu mooy intérêt damaa joxe rek misaal ci kii dem di daj yi mm. ak ki jekki ba mm. guddi mm. waaye ki nga jox kees gi itam mu jognaati ko yóbbu ko moo xam kees gu tuuti la moo xam kees gu rëy la keesu état la wala geneen kees lu mu jël ko jëmale ko ci loo xam ne yëfi boppam la kooku moom ñii di jóg guddi di di dem ci armée yi ñoo ñoo am képp kat soriwul soriwul ndax jikko newu fa dëgg la jamono yoo xamee ne nit ki toll na foo xam ne mi ngi xool intérêt personnel am di ko jiital ci loo xam ne lii intérêt public la nga xam ne askan wee ko moom mu di ko jël di ko jariñoo moom dong di bàyyi askan wi kooka dañ ko war a defaraat ku mat a tabax la danoo jàpp ne nag aw askan wu nekk mënuñoo tànn keneen ku génn askan woowu yi moo tax fii mu nekk nan tabax waaw nit ñi nañ leen jàngal diine nañ leen ci yar yar nag waxuñu nit ki day xëy benn bis rek sotti bu ñu waxee yar mooy ndànk ndànk ba boo ngay àgg nga jëm ñaareel bi yar taxul ñu nit ki sotti na cent pour cent ba duuti jub mukk déedéet doomu aadama moom day jub noonu la ko yàlla mm. bindee mm. borom bi dem na ba ne su fekkoon ne sax ci hadisul qudsi ba mm. su fekkoon ne du ngeen def ay bàkkaar di jéggalu dey kon danaa bind ñeneen danaa leen fi jële bind ñeneen ñoo xam ne ñoom dañuy defi bàkkaar di jéggalu <laughs> kon jullit bi du naagu mukk ci kaw ne sàggan na waaye nag mënees naa fexe ba li baax gën a bari de dëgg la ndax li baax gënoon na fee bari ca gannaaw boo delloo ci siècle yu njëkk yi ci lislaam mm-hmm. la baax moo gënoon a bari mm-hmm. boo ñëwee da doon tane da doon tane ba ci sun maam yi mm-hmm. la baax dafa bari woon lool mbaax dafa bari woon dafa tosaaroo woon nit ñi dañoo juboon dañoo xamoon alxuraan dañ koo gëmoon dañ doon bind ci lislaam dañ ko doon dund di ci am ay daraja ka tekki woon dara ci ñoom it mooy ka ka ka jàng dara waaw boo ñëwee di takk soxna sax ca ndaraame wala nga dem fële ca ndaam waaw boo dikkee dañ lay nattu ba xam am kaa nga am déet hmm. dëgg la boo mokkalee alxuraan ñi may la jabar boo mokkalul alxuraan ñe ne la demal jàngiwaat demal jàngiwaat dañ lay nattu dajale ay nit li ñuy def hmm. ñu testé la da ngay jekki ba guddi ñu reer ba tëdd des ñu dem ak yow kaa ngi yëpp feranklaayu wër la nga hmm. yëkkati sa baat ca kaw di la dégg allahu akbar taxaw rek boo ko defee ñe ne la sooy boo nga dem jàngiwaat mokkaloo ko waaw mokkaloo ko kon jamono yooyu xamoon nañ lan mooy nit koo xam ne Euh, xamoon nañ ci am diine valeur bi mu am moo tax nag loolu faw ñu dellusiwaat ko delloosiwaat ko ci suñu jamono laaj nañ organisation bu baax a baax a baax ci suñu mbir laaj nañ defaraat laaj nañ jàngalewaat yar tabax nit ki ba mu doon koo xam ne mooy koo xam ne bu ëllëgee réewam mii mu fonk lépp lu mu gis mu jëm ci lu koy yàq wala lu koy jéem a jalgati wala lu koy jéem a delloo gannaaw dana taxaw ne ko loolu du fi amee loolu am na solo bala may jox Mouhamed Lamine euh, docteur ci tomb bi ba léegi tomb bu am solo la te mooy defaru gi mais surtout jaare ko ci diine benn problème benn iskali rek laa am mooy jamono ñu toll nii tembe fii ci Sénégal euh, ñi ñu ñi ñu tuddee nitu diine ñun ñëpp ñun ñëpp doomu daara yi ñëpp day ñoom dañoo tanewul ñu bëri te ñoom ñu ngi ci diine ci diine yi ma sa jàng ba pare te tanewul ñu bëri léegi loolu lu ñu koy lijjanti loolu loolu sax laa junj léegi ndax moo tax ma ne mbir mi yëmut ci jàng rek maanaam bul ja mbir mi du jàng rek ñu ne kii daal day doon kilifa diine mën ngaa jàng diine ba noppi teg ko fële ñaareel ba nekkul itam bokk ci kërug diine rek mën ngaa doon bokk ci kër ña gënoon a baax te gën a am histoire ci diine lislaam am ca cosaan am ca démb nga ci du jaaroo ci yoon wañ jaaroon dëgg la loolu moo tax euh, lu mel ne lii ngay junj di am jàpp naa ne daal Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yore loolu wàllu diine ñi di leen tudd di tudd diine nii nit ñi mel tey am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag mën mm-hmm. na maa jàpp ni ñoo ci ëppale sax nag mm-hmm. ndax yow ma nekk imaam ca sa jàkka am na loola war sa diggante ñii xëy di toog ci jàkka jooju di la déglu mm-hmm. yow ma fa toog ca sa jàkka ubbi bind di jàngale mbooloo ma teg di toog di la déglu am na lu dox sa diggante ñoom waaye yow ma nekk kilifa diine itam mbooloo mi xëy di màbb fenn fu nekk ñi di fa jóge di ñëw ne la yow la te diine rek tax am na lu dox sa diggante ak ñoom. loolu am na solo kon responsabilité la boo xam ne waa diine kenn si kenn jiituwu leen ci dañ caa war a góor góorgóorlu bu baax a baax a baax waaye wàllu état itam seen responsabilité dox na ñoom itam. Lamine. waaw yaa yaaru yaa defaru gi defaru gi ci diine ji. waaw. est-ce que yomb na. Euh, waa xam nga lépp ci volonté rek la aju. Mm. xam nga diine moom naka jëkk mooy baaxal nit. Mm. Euh, léegi nag euh, pour nga baaxal nit ci diine il faut nga dégg diine. Mm. xam nga problème bi yëpp nag mooy nit ki nan la déggee diine xam nga su fekkee ne ki nga xam ne moom jàpp na ne diineem yëpp mm. mooy su baaxee daal na julli juróom mm. waxtu julli jot foofu la foofu la diineem yem wala diineem mooy mu dem gàmmu dem màggal ñibbisi ñu ne kii ko am diine la loolu bu fekkee déggin boobu la déggin bu xat la diine système de vie la diine dafa defar dundin la dundin la mm. dafa matale lépp lépp la matale te bu ñu xoolee ñi nga xam ne dañoo sukkandiku ci diine atte seen àtte moo gën a rafet moom la histoire di fàttaliku ba léegi fii ñu toll nii te loolu nag yomb na yomb na trop trop trop ci Sénégal man damay wax ne la fait que ñu jëloon tey histoire bi docteur junju léegi suñu maam yu baax yi tey euh, imam Dame Thierno Souleymane Baal ci ban école nga gis ñu jàngale ko ci réew mi. benn benn amul benn. est-ce que tase ah, mos nga daje mos nga dajeeg benn politicien. mu lay wax ci Thierno Souleymane Baal. dañ ko dañ ko ruus. waaw waaw et pourtant kooku docteur. man bi may jàng dundam bokk na li jur révolution bi. bés nit ku ñu ñuul ku ñu jàpp jaam. Mhm. dugal ko ci bato bi waa ji di tari alxuraan mu ne waa ji kii da nga koy bàyyi kii du jaam. du dem mhm. kii du dem. mu mu jàppanteeg moom ci ci ci ci gaal gi. Mhm. taxaw koo xam ne dog buumi njaam. ak ku ñu xañ ay akam nga taxawu jox ko ko. looloo jur révolution bi ñu ne duñ ko jàng ci réew mam dëkk ay doomam xamuñu ko ay sëtam xamuñu ko hmm. loolu bu ñu ne dañu bëgg citoyen bu baax dañuy nax suñu bopp ça c'est vrai ah? waaw c'est une contradiction xoolal ba ñuy tëral état ba hmm. charte ya ñu teg bokk na ci lu mu wax moom Thierno Souleymane Baal ak almaami Abdoul Khadir Kan ne bu nu gisee njiit mi am alal joo xam ne dafa bari alal ji nañ askan wi nañ ko laaj fi mu fi mu ko jëlee mu mu justifié ko bu ko justifié wul nañ ko folli su bañee nañ xeex ak moom ba daaneel ko. loolu tey dañ ko war a xam suñu wàllu politique. tey li suñu politiciens yi li ñu lekk ci suñu alalu réew kenn xamul nu mu toll. dafa mel ni ku toog lekk ba doyal da ngay dem ñibbi rek dem ñi dem ñibbi seen dëkk bële. boo faatoo ñu buubaat la indiwaat la ci réew mi. donc yooyu yëpp tey lu ñu war a xoolaat la man jàpp naa ne mag ñu baax ñooñu bu ñu commencé di leen jàngal xale yi seen jikko ñuy màgg ak moom niveau bu ñu toll si ñàngu ñu nekk primaire am lu ñu leen ci xamal. bañ leen jàngal rek ay dat Cheikh Omarul Fouti at sàngam la juddu. mu nga mu nga disparité gara loolu kese lañ leen di jàngal. ñii seen histoire dañ leen ko war a jàngal ci wàllu moral wàllu politique wàllu culture. mais lajoor xoolal jikko am na benn politique bu ñu invité woon fii si tutela ci kàddu. waa ji dafa soppeeku daal. dégg nga ma ne ko ma ne ko mais lajoor Joor xoolal keroog bi muy wax ak sëñ Touba sëñ Touba ne ko toogal ma jox la lu gën. am lu ma la warlul ko mbir mhm. mu ne ko sëriñ bi damaa joxe sama kàddu ba pare mhm. sama kàddu jiitu na ma te gor yaa ngi may xaar mhm. Lat bi mu demee ci lañ ko faat loolu dafa bokkul suñu culture wala Lat Joor moom du politicien wala dafa jiitewul woon réew donc man pour man bu ñu bëggee sàmm sa kàddu sàmm sa kaddu yooyu loolu moom suñu suñu deret la nekkoon suñu deret la nekkoon mais tey nekkatul ci deret ji jàpp naa ne daal li docteur wax nañu jàngaat suñu maam yu baax yooyu ku ci nekk ñu xool yi nga xam ne moo gën a positive ci sa dund ñu jëm ko def ci xale yi mais nag benn peuple ci àddina mënul defaru lu dul su fekkee dafa am ay leader c'est leader dafa am solo réew yi jëm kanam yëpp danoo am leader bu jub bu sell bu baax li mu leen di wax ci lu mbaax yëpp mu jëfee ko ñu gis ko ci moom roy ko mënuñu nekk théorie nii comme ça te amuñu un leader ñu ah, am benn il faut ñu am benn leader boo xam ne mooy nekk exemple bi loolu moom mosa am ci histoire ñu soppi àddina yëpp noonu la ñu loolu day wane kon importance li ñu dëgmal te mooy tànn kilifa. docteur euh, léegi euh, euh, am nañu citoyen bu baax. formé nañ ko loolu lan lañu mën a jural en tant que société. xam naa bala maa kii sax danaa bala maa agsi foofu danaa daaneel li ma doon wax sànq. Mhm. parce que day question bu am solo. Mhm. muy fi ñuy jaar ba amal ko. Mhm. bokk na ci yar nit ki ci dëggu. dëggu. xam nga bokk na ci nattu yi am même ci politique sax. lu tax nit ñi dem ba mu yàgg gëmatuñ politique damay waxtaan ak benn waaye mu ne ma man politique moom weddi naa ko amul diw amul diw ñëpp ñëpp a yem leen xam nga ñëpp yem jooju li ko indi dafa am lu ko waral dëggu dafa am solo yaa xi loo mënul bul ko dénk bul ko dig nit ñi loo xam ne wóor na le mënoo koo def bul ne naa ko def nee leen am naa yéene nàngam di ñaan yàlla mu dimbali wu ci nàngam sàmm ba dafa dafa doon koo xam ne ab kafkat la su jofalee rek jiital ak juróom ba jub dëkk bi yuuxut dimbali leen ma till gi till gi mais nag sa sa wolof yi de ñu bëri xamuñu ko ah waaw dañoo jaar ci àll <laughs> loolu suñu problème la yow wolof yi ngay làkk moom dañoo jaar ci àll ay këf kafat ak ay jofal ak yooyu moom xale yu bëri xamatuñ ko jofal nag moom mooy booy yóbbu sa jur di dem ci suba gi da wëtal waaw boo demee bu ñu wàccee ne ngay dellu si loolu la ñu tuddee jofal dëgg ci kër ga waaw mooy ñibbi ci kër ga li mm. muy jofal si nag bu jubee dëkk bi rek mm. Euh, yuuxu till gaa ngi ci sama jur gi nit ñi génn bu ñu dikkee mu ree ne leen dama leen di nax mm. ba am benn bis mu génn rek till yi wër ko nag mm. mu yuuxu woote woote nit ñi ne ah leen mu doon wax rek moo fi mm. nekk till yi jàpp la leen neex yóbbu bi ñu dikkee nag door xam ne te waxoon na dëgg kon loolu ñàkk dëggu loolu lay indi buñ continuer di nax nit ñi danaa la defal nangam dëkk boo dem ne danaa leen defal nangam danaa leen defal nangam ba noppi bu jàllee dootuñu la gis la dégg duñ def dara bu yàggee dañuy wax ne mboolem ñi nga xam ne dañuy politique nii lañ mel. la ñële waxoon rek lool la ñuy wax tey kon yar ci dëggu mun te ñàkk ak wóor maanaam ko ñi jub jub waaw amaana munul ñàkk amaana ci alali jàmbur surtout surtout alali jàmbur ak alali réew mi ci boppam faaw nga dem ba say loxo set wecc ci loolu ñu xam ne kii ku maandu ci alali alali réew mi alal jii ñu la sàmmloo ci réew bureau bi nga nekk di liggéey sax danga ciy sàmm. ñu ngi may nettali kilifa goo xam ne bokk na ci bañ ba ñuy nettali ay mbiram. am ku ma nettali ne man mi doon dund ak moom de ci bureau am daana toog ba mu yàgg téléphone bii mu tiim mu jóg di wër di abbi ab téléphone pour woote. ma ne ko waaw lu tax mënoo woo mu ne li may woote daa ajuwut ci luy liggéeyal état bi maanaam sama sama waa kër laa sama waa kër laa bëgg a waxal mm. moo tax mënumaa wax ci téléphone bi nga xam ne état bi moo mm. xam nga li toll foofu mooy mooy li ñoŋ mm. moo lay delloo ci Omar ibn Abdul Aziz ca jamono yu njëkk kon jaadu na yar nit ñi itam ci xaraña li ñuy liggéey mm-hmm. compétence loolu nag nun ñaare manqué wunu waaye li ñu tuddee axlaaqiyatul mihna mm-hmm. bi nga amee compétence ba noppi nga maandu foofu la ñuy faral di amee. lu lu mm. manqué. Mm-hmm. Mm-hmm. jaadu na appliquer li ñuy tuddee justice ci askan wi. ndax loolu day tax nit ñi duñ naagu. Mm-hmm. day tax ñu xam ne kenn sañ te kenn da am doole da ngaa am daraja da am xaalis du tax sama xel ragal la. ndax am na am naa xel mu dal muy wane ne atte ci yoon dana am. faaw ñu am ñoo xam ne lépp lu dul yoon dañ koy jëre ci réew mi. ndax kat Sénégal monarchie moom bari na fi lool lool. bu fekkee ne boo xëyee ne place bii ni fi nit ñi dajaloo jaaduwul fii ñuy jaayee du marché nañ leen fi jëlee. ñëpp daal di jóg marche ñu taal ay pneu nga daal di dellu gannaaw ca la nga waxoon yow état. su boobaa yow dese nga. dëgg la maanaam li dul yoon daf fee war a jóg. waaw sanction dafa war a am. nit defuk njaaxum dagg ay bakkan ren di nangam ñeneen nañ ko jël ci kaso bi ñaari at ñetti at ñu génne ko delloo loolu dafay war a ji mm. doomu aadama ci jëmi boppam ngir mu tegu ci aw yoon dañ koy teg ci aw yoon dëgg lu bari nag ay nit nitam koy def loo xam ne jàdd yoon la la tax ñu génn ca la tax ñu continuer ca loolu mooy kenn da leen tegu ci aw mm. leen daal faaw ñu delloo si waat mm. dëgg dëgg boo xam ne day taxaw di teg ci yoon loolu moom waxuma ceeg ma sàmm waxuma ceeg ma dem waaye mboolem ñi nga xam ne ñooy sunu njiit yi nañ góorgóorlu ci loolu fexe ba lii dul yoon ci suñu dëkk yii mbalit yi ñuy sotti fu dul palaasu mbalit caaxaan yi ñuy def fenn fu nekk doon marché fenn fu nekk doon ab garage oto di fa taxaw nga xam ne boo wàccee capit boo tukkee ci dëkk nit ñi ba gis niñ ko organisé nga wàccaat ci sam réew da rus dëgg ne man ak a neexoon réew yi ma jóge foofa laay dëkk waaye du ma dëkk fii mhm. loolu mënut a jur civisme ci xolu doomu aadama ki am am réewam dafa bëgg ku wàcc ci am réewam xam ne moom kenn gën liwu ko am réew loolu nag moom la ñàkk fi mu nekk nii kon ab liggéey ngi foofu boo xam ne bu rëy a rëy la mhm. euh, su ko defee defe naa da ngaa laaj jeexit yi nga xam ne waaw ah, citoyen bu baax mën na ko jeexital ci société mën na ko jeexital ci société bi mhm. la ci jëkk moo di nit ña danañ dem ba intérêt public moo leen di gënal sax seen intérêt bopp. nit ki mën naa perte alalam perte sax bakkanam ngir défendre am réew dëgg dana ko ko jaral bu boobaa loolu la ñëpp bokk moo koy gën a li moom moom dong. moom moom moom dong. dana dem ba réew moomee xiif duut fa mën a am. boo gisee borom bi tabaaraka wa taala boole ñaari mbir yoo xam ne réew mu dox ci lay ci lay ci lay. tegu koy natte. waaw muy wa aamanahum min da ngeen dem ba xiif duutu mën a am lu ko waral mooy wa taawanu alal birri wa taqwa mhm. dimbalante gi nga xam ne moo nekk ci biir askanu lislaam mhm. mooy tax duma ma seetaan sëñ Dramé muy xiif moom itam du ma seetaan may xiif mhm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu wasalaam gëmul yàlla ki nga xam ne dafa fanaan ci këram regg ay dëkkandoo ma xiif gëmul yàlla xoola xoola boobu solidarité su fekkee lu mel noonu moo am ñi koy dund jeexit lay doon boo xam ne xiif moom dana jóge ci woowu réew te it du yem ci sax nit ki ñàkk rek nga jël sa alal jox ko dimbali ko waaye da ngay fekk ku war a liggéey nga dimbali ko mu liggéey noonu fi ne lu gën baree bari ci lu tax su ndaw ñi di génn di dem ay Espagne ak fenn fu ne di fa jéem a liggéey mooy dañoo am ay boroomi alal yoo xam ne xamuñu ni ñuy def seen alal yi denc ko rek di ko xool su fekkoon ne ay tool lañ xotti tey ñoom yu am njariñ jël ay ndaw dugal leen ci biir loolu di leen fay ay salaire ñuy liggéey kon kenn du génn di dem maanaam ñii génn di dem bu defee ne état leen di jël ay doomu aadama yu nekk ci biir Espagne wala ca Italie mm. wala feneen mm. ñoo ubbi seen tool ñoo ubbi seen entreprise di wut ay nit ñu leen liggéeyal di jël ñooñu di leen liggéeyaloo mm. kon suñu borom àll yi nekk fii mën nañoo def lu mel noonu ñu jàppale leen ñoom itam yombalal leen ubbi ay tool yombalal leen ubbi ay usine ak ci liggéeyukaay ñu mën a jël ci ndaw ñu ñu toog liggéey xanaa ñu ñaan xale yi rek ñu afficher numéro yi pour mbokk yi doon topp émission bi te amoon yéen dugg si ñu may leen occasion ñu dugg si mm-hmm. waaw bisimilah maanaam développé am réew du état rek bu nga koy def mm-hmm. état day def li ko war ci organiser ak yombalal nit ñi ba lépp lu ñu bëgg a def lu ne mu teg leen ci yoon wañ koy defee ne leen nii la gëne yombalal leen lépp lu aju ci wàllu këyit yu mel noonu tam gaaw su ko defee la ca des nag mooy waa askan wi ci seen jëmmi bopp ku yàlla may dara ku nekk nga ubbi loo xam ne ñaari nit danañ ci mën a liggéey ba ci fukki junniy nit su ko defee ñooñee di liggéey ci sa biir ñooy téye ndaw ñi ba duñ génn jëm di taxawaaluñu ak di wuti fu ñu liggéeyee mmh. loolu mooy réew mu jëm kanam kon Euh, fawu loolu dafa doon loo xam ne lu war a am la beneen bi ci des mooy yëfay juddoo mooy dimbalante day daal di am ci biir réew moom mm-hmm. taawun mm-hmm. ndax euh, kenn ku nekk ginnaaw dafa am lu ma aajowoo ci yow am loo aajowoo ci man faw mm-hmm. dimbalante rek mu mën a dox suñu diggante ndax ngir ma jot ci li nga yor nga jot ci li ma yor faw nu jàppalante maa ngi fàttaliku jamono yoo xam ne ci réew mi da dem ci dëkk yoo xam ne euh, da ngay toog am na kuy sonné ah. dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi bismillah yokk son bi yokkal volume bi salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ok yow Sow Dame. ñu ngi lay ziar waaw kooku kan kooku kan la. Eh, Ndongali Dia Touba. Ndongali Touba bisimilah. ñu ngi ziar bu baax suñu naan Lamine Dramé. ñu ngi lay fay ñu ngi lay delloo nuyoo. di di ziar bu baax docteur Ahmed Lo. bisimilah bisimilah. Eh, di ñaan suñu borom guddoo seen i fan barki yéen di. amiin ci barki yéen bi amiin. yéen ñi waxtaanee lu am solo loo xam ne nii. Mhm. bu yaatoo dana gën a baax ci askan wi ak ndaw ñi. incha allah. waaw ah, léegi rek may laaj incha allah rabbi Ahmed eh, man taxawaay bi maanaam wàllu wate bi. wàllu wate. bu ñu gisee waaw bu ñu gisee ni ñii comme comme chaque chaque chaque élection li ñu wax moom la ñu wax du passé maanaam li ñuy wax ak li ñuy def. waaw. ñu ñëwee du bokk. waaw waaw. léegi est-ce que jotul ñun téye suñu bopp. bañ a wotee du wala bu fekkee duñ téye suñu bopp nan la ñu def. mu ne chaque instant li ñuy wax du bokk ak li ñuy jëf est que jotul ñu téye suñu bopp ah, daal maanaam ñàkk a watee jë ah, ah, waaw d'accord incha allah ok loolu laa wax jërëjëf mbokk mi Touba jërëjëf docteur waaw docteur waaw xam naa moom de li mu wax sax lu lu lu xoromu la ndax hmm. euh, day day gëstu solution rek. wax na mm-hmm. dëgg maanaam maanaam saa bu problème amee. nit ñi dañuy def li ñu tuddee al asbu zihni. Mm-hmm. kenn ku nekk loo jàpp ne solution la rek. waaye mm-hmm. nag tey ñëpp tey seen bopp itam. mën naa def eh, su boobaa dara du dox ndax ka su boobaa. loolu dafay sax dafay sax mu ngoog dafay sax. su ko defee bokk yaa ngi doon joxe exemple ci dëkk dëkk yi jamono. bu jamono naqariwaan dëkk yi dëkk àll yi. dëkk àll yi da nga toll diggante boo xam ne dana la wóor ne dëkk bi ëpp dërëm fanaanu fi. waaw mais nit ñi dañuy jaayante ko jëndante ci liñ yor. waaw da ngay gis ku yor am soowam dikk ñu nattal ko barce barce mu nattal la mm. koogu soow nga nattal ko koogu pepp mm. dafa nangam mm. kon jokk jolante boobu moom day cosaan ci doomu aadama daf fee dëgg mooy moom li ñuy tudde dimbalante dëgg dëgg dëgg mooy li nga aajowoo ci man ma yombalal la ko li ma aajowoo ci yow nga yombalal ma ko su ko defee na ànd di dem askan woo xam ne civisme dëgg dëgg dox na fa nga xam ne almuwaatul mu saalix am nañ ko ci biir rythme boobu ci la ñuy dund mm-hmm. maanaam teguwul rek ci bari alal maanaam ñu bari dañ ne buñ dimbali nit dañoo defar mooy jël alal jox waaye fekk na du loolu mm-hmm. nit ki orienté ko sax mu xam la muy def dimbali ko la jëndal ko dara ne ko demal liggéeyi ci lii fas wii demal nga liggéeyi ci bismillah <coughs> bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Dame Ndiaye waaw yow la kan. man la sëriñ Mbacke Ndiaye maa ngi leen di déglu. sëriñ Mbacke bisimilah Ndiaye bisimilah. nuyul ma docteur Mohamed Ahmed Lo moomu. mi ngi lay dégg. mi ngi lay dégg. nuyul ma sëriñ Dramé moomu. mi ngi lay dégg. Ah, man de ñëw ma sax fi mu ne téléphone dama bëggoon a fay di déglu rek. waaw te it amatu may wax. macha allah maa ngi leen di déglu daal mbir mi rafet na. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. li docteur bi wax rek daal nit ñi bu ñu maandoo am compétence. la Diouf soo waxoon. waaw. inni xafisun alim bu diis ba mu waxoon. inni xafisun alim bu ñu ko defoon rek daañu am ay citoyen yu yu yu yu baax yu complet. dëgg la dëgg la. jërëjëf bëgg naa yàq temps bi bu ma soxla na ngeen di wax lu ma. trois heures de temps jërëjëf Ndiaye am na solo. maa ngi yoroon fii mu baax. trois heures de temps moom da ngay jënd émission bi ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal jënd ko. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. kilifa diine la. waaw waaw dëgg la jërëjëf moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. dëgg la dëgg la bisimilah. Euh, leneen li ci tegu mooy euh, li muy jur mooy li ñu tuddee alxiwaar day am ci biir askan wi mm-hmm. mu jaloog mm-hmm. askan wépp woo xam ne ña fa dëkk ñu ñu tabax lañ ba ñu mel nañ war a mel mm-hmm. seen diggante du am ak tëju xam nga lu bëree bëri luy am ci diggante askan yi maanaam ñaaw njort gi dox diggante diw ak diw ba tax kenn ku ne am as mbooloo su la wër ngeen di bokk di wax ci diw bu waxtaan amoon seen diggante loolu dëgg la su boobaa nag bunt yi day ubbiku waxtaan mën a nekk ndax nit ñu baax a fi nekk ñoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk leen lu leen parce que ñëpp nawle la leen jàppee waaw dëgg réew bu fekkee ñëpp nawle nga leen jàppee da nga na nga ñoom te àdduna bii lu nekk dafa am benn fiq bu fi am boo xam ne bu ma xam la mooy al dafa am lu ñu tuddee mustarakaat xabaliya nga xam ne baag diw sàngam noo bokk dëkk noo bokk aw askan noo bokk am réew xoola yooyu bokk yu bari waaw noo bokk diini dem na ma ci noo bokk doon nit nga xam ne mustarakaat insaaniya la te mustarakaat yooyu li muy bari bari nga xam ne yu doomu aadama yu bokk la hmm. lu ci ne dafa am xaq hmm. te lislaam daf ci addu waaw moo tax suñu borom tabaraka wa ci alquran waxut ak kenn mbooloo rek bismillah dëgg la macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah ah man la Mouhamed Fall. Mouhamed Fall bisimilah fooy wootee. waaw man maa ngi wootee Kër Massar. bisimilah Fall. waaw di rafetlu émission bi. Mhm. waaw doon déglu waxtaan bi. dëgg la Fall. waaw parce que ci indirection rek sama xalaat. bisimilah Fall waaw man nag euh, dama dama leen yàgg di seetaan. Mhm. waaw te damay wax ne Sénégal ki koy defar. Mhm. maanaam ku ñuy fal la muy war muy xalaat bàmmeelam. waaw nit la koo xam ne bis buñ ko falee. Mhm. li li muy tekki bàmmeelam rek lay xalaat. Mhm. kooku moo mën a defar réew mi. Mhm. waaw ndax euh, bu fekkee dañ lay fal ngay xalaat say ñoñ. di xalaat euh, say intérêt. wala lan moo la fi gën a yàggul loo. doo fi defar dara. dëgg la dëgg la Fall. waaw yàlla may may njiit yu jub. amiin amiin. waaw njiit yu ragal suñu borom. waaw fa am ku fi jógee fan yi rek. muy Bruno moom. nga mm-hmm. dégg ñu ne def na fi nangami at ci nguur gi. Mm-hmm. kenn mus ko dégg ci dara. Mm-hmm. nga gis ay kilifa jóg di ko seedeel. te ñooñu façon scandale bu ne déggal nañ leen ko. dëgg la dëgg dëgg la dëgg waaw kon nag seedeel nit ki jéem a teg fi mu tegoon tànkam moo gën. dëgg la dëgg waaw te damaa gëm ne. ah li fi mag ñu baax ñu bàyyi. giñ naa ko suñu borom du neen. Mhm. dina metti nag dina yàgg lool. dëgg la mais dafay yàgg rek mais ñooñu seen i sët yi. Mhm. wala liñ fi gis dañuy meññeef. incha allah. bés dana ñëw laa la wax ñu toog si nga xam ne nii ñoom ñoo war a teg réew mi ci saata mustaqim. incha allah. waaw man dama jàng benn téere bu sëñ Tuubaa bind. Mhm. muy tasawudu sihaar. boo ko jàngee ba mu jeex. mu ngi ko tuddee yóbbalu ndaw ñi. nga dem rek fu ci ci bunt bu mujj bi fu mu yàq ah, baabun fi ixtaan mm-hmm. lim fa bind mm-hmm. lépp defar doomu aadama mm-hmm. mu ngi fa dëgg dëgg la duñ ko dégg fenn dëgg la ko Baay Laay defee noonu la ko Seex Islaam defee noonu la ko kii ku baax ci léegi tudd Cerno Souleymane Baal dëgg la dëgg la dëgg la loolu dañ koy teg fële dëgg la dëgg la Fall waaw ma ma jeexalee rek xam naa am na ñaagi ci ligne bi gis nga sikkim mm. Mm. da gis fi mag ñoo xam ne mm-hmm. tey bu ñu bàyyoon seen sikkim ñu ngi weex tal mm-hmm. mais jege nguur a tax pepp mm-hmm. karaw sax doo ko gis seen sikkim waaw man xale bu ndaw laa dangay gis kilifa day taxaw dama bàyyi noonu sama karaw commerçant laa day ñëw naan ma père man ko déet yaa ma mag de da am sikkim xanaa waaw am naa si ci macha allah te ni ko suñu borom bindee noonu laa ko bàyyee. dëgg la. Hmm. waaw dinaa ko defar nag ba ku ko gis xam ne lii du du du. lu daal waaw góor waaw góor. waaw waaw gis ay kilifa yoo xam ne fii dañuy toog sol kos cravate mat nañ la maam fépp karaw doo ko gis. Hmm. waaw te loolu damay wax ne mat dañ koy fekki. Hmm. boo bàyyi mag fekk si la rek da ngay sonn. dëgg la dëgg la. yàlla nag nee na ku ma jox sa ndaw. ah ma ma téyel la sa mat waaw foofu laay jeexalee. jërëjëf Fane jërëjëf docteur Waje mbokk mi dugam bi am na solo. waaw daanaka daa tënk li ñu wax lépp. mooy li mu wax ne moom li mu jàpp mooy réew mi balaa baax ki ñuy fal bu ñu ko falee rek xelam daa daj bàmmeelam. waaw mooy li nga doon wax yaru diine bi. parce que yaru diine ku ci génnee gëm dëkki. waaw amoo mu jeex. dëgg la. te gëm dekki mooy tax a baax mooy li nga wax ne mooy inna alladina laa yuminuuna bil axirati an salaati la nekk boon ku gëmul dekki mun ta baax moo wax yëpp wax na ko man li wax ci laa d'accord. Ah. moo di ne bu ñu amee nit ñu gëm dëkk rek. Hmm. problème yi rek la. Eh, li mu wax sax dafa am lu ma ci jàngataat loo ah. hmm. fi bàyyi ko ñëpp. ngoog àndandoo di ko tagg. Ah. te ni mu doon def ñëpp defuñu ko. loolu ma lay wane ne mbir mi mooy li ma doon wax léegi. du hmm. mbirum xam rek. waaye da ngay xam ba nopp ñu yar la ci. dëgg la dëgg la. maanaam lu tax ñëpp meluñu noonu. waaw wala ñi ëpp sax te ñëpp xam ne lu baax la. ñëpp xam ne lu baax la. moo di yaruwuñ ci hmm. waaw mais xam lu baax moom daanaka nit ki fitra la ci moom hmm. maanaam yàlla da ko bindee noonu ne lu baax buñ ko gisee xam ne baax hmm. wax lu du dëgg ñëpp xam nañ ne baaxul dëgg la sàcc alal jàmbur ñëpp xam nañ mala yi sax yàlla def na ci ñoom loo xam ne daanaka lu jaadoog lu jaadoor xam nañ ko dëgg la fii ne sa muus mii ci sa wet boo doon lekk jël dara sànni ko fii nga ko sànni foofu lay toog lekk ko mais bu doon moo ko fëkk day daw xam na lim def jaaduwul kon xàmmee lu jaadu ak jaaduwut xam lu baax ak lu baaxul bokkul ak nag tënku ca dëgg la tënku ca moo tax fii liggéey bi nekk dëgg dëgg mooy fu ñuy jaar ba nit ñi tënku ci loolu dëgg la benn misaal boo xam ne dinaa ko faral di jox mbokk yi lu bëree bëri mm-hmm. benn waay boo xam ne dafa nekkoon ci benn service di liggéey mm-hmm. eh, ci ci ci ci ci ci public bi mm-hmm. fonction publique la nekkoon lañ ko dénkoon mooy wàllu ay bon essence ak yu mel noonu mu doon jox ñu ko neex ku ñëw rek mu jox la benn bis mu dem ci benn jàkka julli dégg fa ab xutba boo xam ne ba mu fa jógee dafa jàpp ci dëndam ndax tiit ci li mu daan def mm-hmm. bi mu ñëwee soppiku waxtu wa jot ña daan jël si ñëw di jël si mu ne leen ah man kët li ma leen doon jox damaa defoon ne sañ naa ko waaye ndekete sañu ma ko man kay fi mu ne mhm. sama yitte jëpp mooy li ma daan joxe fu may jaar ba fay ko mhm. waaye amatuma soxla ci leen xoolal loolu moo lay wan ne yarub diine bi ci boppam mooy defar doomu dëgg la dëgg la ko ci jéemee génne rek dëgg dara du sotti su ko defee la cay tegu nag yii ñu tudd yëpp su fekkee ne am na mhm. mooy nit ki dem na ba intérêt public lay jiital nit ñi dem nañ bay dimbalante ba kenn xiifatul dem nañ ba kenn na kenn tiitatul génnee sëñ Dramé dana ma ci yoon waaw bismillah bismillah asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ok maam ngi lay nuyu man la Umar Ndiaye Daaru Sunna mooy waaw sëñ Omar jërëjëf sëñ Omar Alaaji bismillah Ndiaye bismillah maa ngi di nuyu yéen ñëpp ñu ngi lay fay Ndiaye ñu ngi lay fay ah, mbokk mi nga invité tey nag mm-hmm. dafay suma wëllëri baax dëgg la Ndiaye dëgg la. ñu ngi jàppale bu baax ci seen liggéey liggéey fii Daaru Sunna. dëgg la dëgg la. moo tax mun moom bañ a intervenir. dëgg la tàggal ko. dëgg la Ndiaye dëgg la dëgg la. te ña di ko ñaanal yàlla bu baax. dëgg la. yàlla guddal fanam. amin amin foog naa ne li mu wax ci biir bu ko doon déglu. Mhm. kon ñun ñëpp nañ bu baax. dëgg dëgg la Ndiaye. Ah, moom euh, euh, Mouhamed Lamine Dramé. waaw jërëjëf Papa Ndiaye. moom itam ñu ngi koy nuyu. Ndiaye Ndiaye Ndiaye. di ko ñaan yàlla yàlla guddal fanam. damay faral di wax ni euh, les différentes interventions yi ñu faral di def. bu ñu ko mënoon boolee def ko lu mel ni téere. kon dina baax lool ci ñun. dëgg la waaw parce que bu ci nekk bu ci nekk. Mm-hmm. référence bu rëy lay doon. dëgg la dëgg la. kon yéen ñëpp ñu yàlla yàlla di béy. amiin yaa rabbi di ñaan yàlla liggéey bi ngeen see def tawféex. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. wasalaam jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf. ok waaw su ko eh, eh, eh, xam naa ne sori na <coughs> boo jeexalee ci njëriñ rek ñu nga junjal ñu tuuti ci masaaw yi ba bala ñuy bala ñuy tëj incha allah. waaw xam naa ñu ngi delloo nuyoo kon excellence euh, Omar njaay mm-hmm. euh, kilifa bu mag a mag la. Mm-hmm. Euh, di ko delloo njukkal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi muy def moom itam fa mu nekk. ndax mag la moo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, jaar na ci yu bare bari yoo xam ne liggéeyal na ko réewam. dëgg la. Euh, ba noppi bi mu demee ba teg ab ëllëram. Mhm. mu wëlbatiku di liggéeyal diineem. dëgg la dëgg la loolu mooy wane ne. yooyu ñoo ànd dëgg la loolu dëgg la. maanaam su fekkee ne sàggan nañ ba teguñu mbir yi fi mu war a tegu ba mën a yar. nit ki ba mu mel ni mu war a mel maanaam civisme bi mën a am lan lay jur danaa la jox ay benn benn misaal rek jàngalekat boo xam ne melul na mu lu muy jur waaw ka jàngal ndax dana mel na mu war a ay nulaa rek nag kenn ku fi def benn responsabilité lu da ngaa jaar ci jàngalekat te jeexeetu jàngalekat nag ca ka muy jàngal yàlla rek xam nu mu toll jàngalkat bi su awul yoon ndongaam du aw yoon su dee wor dana wor su dee wax lu amut dana wax lu amut su fekkee ne day wuruj sax ci biir examen yi mën naa jaay sax ay question foofu dëgg la su ko defee ka cay génne euh, lu muy jur lu mu koy jural mooy ñàkk xam dara mm. nga jël ab médecin boo xam ne xamut li muy def mm. seetaan benn benn benn benn film bu doy waar mm. médecin boo xam ne dafa ñëw di opérer mm-hmm. xotti biir bi ba àggal di xool ba mu yàgg mu jëlaat ab téere di di yër lan la war a ñëw lan la war a ñëw ak lan la war a dindi ak yu mel noonu xam nga su fekkee ne <laughs> ay médecin foofu lañ toll kooka musiba la la yii ngay dégg ak di ko gis ci xeetu càggante ci faj ci sunu réew yi ñàkk yar nit ki ba mu mel na mu war a mel moo ko ñaata nit lañ fi lañ fi opéré ba àggal dem ba jëmmi jamono ñu opéré waat leen parce que ab siso la ñu bàyyi ci biir allahu akbar léeg-léeg ay danki kotoog ay kolog yu mel noonu la ñuy bàyyi ci biir mm-hmm. ñëwaale ko allahu akbar ñu yaraat nit ñi delloo si leen teg leen itam nag ci yoon mm-hmm. ku jël gay ñu teg dara sa kaw nag ngir bu léegi dutoo ko def mm-hmm. dëgg la fonctionnaire bi nekk ci bureau am na nu lislaam bëgg am na yar boo xam ne moom lañ ko war a yar ngir mu def li nga xam ne mooy liggéeyam saa boo xamee ne loola amut fa mu toog jalgati la fay def ba keroog mu koy ah. jóge lu mel noonu su baree su baree nga xam ne dafa dem ba siiw ci biirum réew ba aaje woo benn agence bu nekk ñi dém koo taxawal ngir jéem a xeex ger jéem a xeex wuruj jéem a xeex nàngam ndax agence yooyu lu mu gën a bari rek mooy gën a wone ne askan wi ci boppam jaaraguñ ci yoon dëgg la am na menn réewum jullit moo xam ne gan dafa ñëw jóge ci lenn ci réewi tubaab yi mm-hmm. ba kilifa àndeek moom di ko won secteur yi fi nekk won ko ne nag fii nag nun danoo dem sax képp koo xam dañ laa tooñ ci tribunal man li ñu tudd diwaanul mazalim mhm. képp kuñ tooñ ci tribunaux yi rek boo génnee fii ngay fii ngay jàmbate si mhm. est-ce que di ko wan ne ko noonu danoo danoo maandu ba am nañ lii mhm. kooku ne ko ah noonu de suñuy tribunaux moom mënuñoo tooñ système bi ci boppam mayul kenn sax mu mën a tooñ faf lay aajowoo loolu kon nga xam ne yëf yëf fa mu nekk gën naa gën naa gën naa xóot loolu gën naa xóot loolu du caa gën ko def rek ñu sanctionné waaye daa war a mën a dem sax ba ba ba jalgati jafe ba jalgati bi duutu ko mën waaw. jalgati jafe. laaj naa ko kenn ci Suède ba gis réew moo xam ne daanaka lépp glace la. Mhm. ba noppi mu bokk ci réew yi nga xam ne dañoo mhm. ki nga xam ne moom lañ nekkal ma ne ko waaw mu mel nii nga xam ne mbay dara mënut a baax fuñ jaar ba ba mën a mel nii te noonu suñu réew yi nga xam ne. Mhm. mu ne ma daal fii luñ la mën a wax mooy système bi la maanaam duñ sàcc ma ne ko kon dañoo maandu mu ne ma déedéet dañoo mënut sàcc. ni ñu tëggee système bi maanaam mënuñoo sàcc waaw boo ko bëggoon it mënoo ko mm-hmm. kon nag yu mel noonu suñ yooyu lan soxla ci dem jëli ko mm-hmm. suñ bu ñuy jëggaani dara ci réew yooyu lu mel noonu soxla na système yooyu war nañ ko wax waaye lu mm-hmm. mel ni ñuy wax ni tey ji defe naa mooy journée pour ku bëgg a avorté avorté mooy bésu tey bii di nekk nii sëñ bi yooyu yooyu noonu soxla wun ko dëgg lislaam dafa am lu mu nu ci suba sax dégg naa mel mbokk moo xam ne mi ngi ciy wax waaye nam nam ca ubbee xaw naa des tuuti ndax euh, li wér mooy aportement ci lislaam mhm. xam naa loolu. entre mhm. parenthèse la bokk baax ne baax na ndax ma ak journée journée bi waaw situation. mu ngoog léegi euh, nit ki kañ lañ sañ a dindi li nekk ci biiram. Mhm. dafa am ñaari ñaari période. fi nga xam ne soo na nekk ëmb. ba keroog muy am. ru euh, cent jour jours waaw. su xasee am cent vingt jours kooku nit la léegi. def nañ ci ruu gi. waaw fii nga xam ne. lu ñu def ruu waaye ëpp ëmb la kooku kenn sañu koo dindi lu dul ci benn cause rek moo di menace la ci ndey ji maanaam suñ ko dindiwul yaay ji dee waaw kon dañuy wax ne kii nga xam ne amagutug ruu suñ ko méngalee kii kii amag ruu borom gi am waaye bi mu demee xam ne am na ruu léegi yaay ji am ruu yaay ji amatul priorité kenn sañu koo dindi mais ku ñëwoon ne da ngay dindi kii amagul cent vingt ci kaw cause ne kat Euh, moom dafa def nangam wala diwa ko ëmbal wala nangam. Mm. su boobaa da nga rey nit. Mm. waaw boroom xam-xam yi dañ lay wax ne. Mm-hmm. ki nga xam ne dafa dafa dafa fekk ëmb. Mm-hmm. ngir ragal ak ñàkk. Mm-hmm. kooku mu ngi rey bakkan. xam nga kooku ëmb sosoogul. dëgg la waaye teewul ñu tudd ko rey bakkan. kon nag ki sosu ba ñu xam ne lii ëpp ëmb la nga di ko dindi ci cause yu mel noonu kooku kon. Euh, rey ëmb loolu sax euh, docteur Ban loolu sax man tam ma profité ci dama wax ne sa mbokk ustaas yi. surtout fuqaha yi ñu bañu temb ci piège boobu parce que léegi souvent ñoom fatwa yi def contexte ye yamu kii bokk la ñii ay euh, biir bu am fe fan ak fan ñoom dañu bëgg ñu tuur biir yi soo leen ne am na fu ñu ko mën a defee rek loolu la jël loolu moom dama koy bàyyi bàyyi loo xel mbokk yu bëri a bismillah daaneel la su ko defee euh, gannaaw boo bu ma la joxe misaal ci jàngalekat jox la ko ci docteur jox la ko ci fonctionnaire bi nga xam dafa nekk fonction hmm. nekkoon terrain ba ba noppi doon warkatu réewam mm. lu muy jur bépp secret boo xam ne secret réew mi dana ko jaay mm. luy tax nga mën mu ci loolu mooy defar mm. moo tax fi ne daanaka armée ci ñi gën sonn ci defar nit ci lañ bokk parce que su dul lool rek ñoom ñu war réew mi te seenu war réew mi du tuuti kon ni ñu sonne noonu noonu la ñu war a sonne ci jàngalekat bi war ko sonne ci médecin bi war ko sonne ci te it xoolal tey ca ca ca ba tey bu ñu xamoon ne sàngam bi mi ngi jël ay information di ko jox ñeneen mm-hmm. nan lañ koy def ndax dañ koy ah, seetaat dañ koy sanctionné fi saas trahison lay lañ koy jàppe kon nag loolu médecin bi noonu la war a mel mm-hmm. fonctionnaire bi nekk ci bureau noonu la war a mel ku ci def lu dul loolu da ngaa war réew mi mm-hmm. dañoo war a teg ci kaw <coughs> sa kaw lu mel noonu bi bâtiment bi tey bu fekkoon ne lu ko neex rek lay def mhm. yëkkati étage ba ca kaw amul feer ci biir amul nangam nu muy def mhm. bakkani doomu aadama na bu daanu ci nit ñi fan yi nii mhm. mu ngoog dafa dafa pëtëx càggante ko waral ak ñàkk sanction moo ko waral kon daal boo doon gàttal da ngay wax ne inconvénient yi muy jur mooy réew mi da duutul dox su fekkee ne amuñu euh, citoyen boo xam ne buñ defar la ba mu baax jàppal ne réew mi duutul dox te itam suñ àllaaxira yàlla moo xam ne muy dox Mamadou Lamine. waaw boo amee dolli ci li docteur wax. waaw li ma li may dolli ci li docteur wax euh, euh, daf may kii rek euh, wane ne tey imaam yi ñu bañ a xeeb seen bopp. Mm. ci soppi jamono. te it bokk na ci li leen siy dimbale imaam yi ñu xam fi àddina toll xam politique toll xam nga ba léegi imaam est-ce que xam nga ne politiciens yi danoo jàpp ne yéen seen classe gi ñu bëri xamuñu xamuñ dara ci politique. Mm. dégg nga bu ngeen di wax sax di joxe yenn solution yi day nekk lu tumuranke ci ñoom. wala wala mu ree reeloo leen. waaw fan yi damay wax euh, ci benn émission boo tudd Machiavel. Euh, le prince. Mm. Mm. téere bi. ak téere bi caacaay gi ci nekk mooy ma ciy joxe exemple ci biir émission bi bi ñu paree sama benn xaritu politicien ma yow fan nga jàngee loolu. Mm. da nga mu yéemu daal maanaam daal man waruma daal xam li xew ci àddina xaw ma waruma xam caacaay géeg li baax. donc loolu tey fi ñu toll nii li docteur wax nii tey. jàpp naa ne euh, politicien bu sérieux tey waroon nga koo seet si tey man dama jàpp na képp kuy def politique war nga wut kilifa diine mu toog ci sa wet ku xam diine nekk sa conseil boo xamante ni li ngay naal lan la ci diine am ak ci wàllu lii ngay wax ci wàllu économie wàllu sociale wàllu culture ban gisin la ci diine am boo faloo lan nga ci mën a jëf ak li liñ ci mënul jëf ak kañ nga koy mën mais yooyu farata la mais tey doo gis benn programme benn programme boo xamante ni am na ñu ne man su ma faloo lii laa nar defal diine ji lii laa nar defal jikko yi amul ci programme yi illaa man rahima rabbuk daanaka daal seen programme dañu jàppee nit ñi espèce bàyyi ma rek toujours fi muy jëm mooy biir bu fees dégg nga xadaaratul batni wal farj hmm. la yàlla tere ci loolu la ñuy dox hmm. donc jàpp naa ne imaam yi tey am nañu responsabilité si seen xutba yi ñu wax fan ban orientation la ñuy jox askan wi léegi nag imam bu amul niveau doo mën loolu li docteur wax ci commencement bi il faut nga spécialiser wu ci benn mbir soo ko mënul tamit fexeel ba am leneen nga am ci culture mm-hmm. am ci notion def ci gëstu boo ko xamul nga dem laaj ku ko xam mais am na ñaata imam ñoo fi nekk def politique keroog ci sunu émission bi nu def ci tamxarit gi dégg nga waa ji nee na man musuma woon xam ne maxtar Kébé xam-xamam ci politique la màcc man na ko ñii fi toog ñëpp mën na leen jàngal politique muy professeur Makhtar man leen imam yi lépp ngi ci biir mais ñoom amuñu chance tey ban ban politicien moo la mos a jël imam Dame ne la dama bëgg nga nekk sama conseil ci wàllu économie mos na am. non ñoom bëgguñ bëgguñ loo boobu. waaw boobu waaw mais léegi nag loolu xasaara la pour réew mi imaam yi lépp ngi ci te li ñu xam ci politique yow xamuloo ko li ñu mën ci politique yow boo foogee ne liy xew ci àddina xamuñu ko da ngay nax sa bopp caacaay geeg pexe yi yëpp xam nañu ko kon jëlal nga jëlal nga jëfandikoo seen xam-xam li li sëñ Fall mi wax léegi man keroog biñ ne Bruno. danañ ko jullee danañ ko indi fii alxemes may wax ak sama benn xarit ma ko sa waay di nga dégg discours yu rafet yoo xam ne mm. ak témoignage yoo xam ne ba nga juddoo ba léegi mosoo koo dégg mm. dina mel ni benn malaaka la ñuy seede mm. dégg nga affaire bi tàmbali discours yi commencé témoignage mu ne saa waxoon nga ko de ma ne ko gisagoo dara semaine bi dinañ wax ba géex dégg nga ma ma ne ko ma ne ko ñoom ñoom politiciens yi man su ma leen doon wax lu ñuy jàngee ci Bruno tey Bruno nekk naag président yi fi jaar yëpp te président yi fi jaar yëpp am na askan wi lu ñu mer ci ñoom lu leen naqari ci ñoom am na lu ñu leen di topp loo xam ne bu ñu leen ko fayul fii dinañ leen ko fay àllaaxira parce que faw ñu layee ko askan wi ma ne ko noo xam ne lépp kan moom mos a gis mu yëkkati làmmiñam benn kàddu jëmale ko ci benn président kenn mosul am te tey léegi boo xamee lu bon ci sa mbokk politicien da nga koy wax soo ko xamul da nga koy sosal loolu ñoom leçon boobu lañu war a jàng nañ téye seen làmmiñ ci wax lu bon parce que fii ñi ñu jiite ñun am na lu ñu naqari ci ñoom noo xam na ko mais mosu ko wax. dëgg la jërëjëf donc. Euh, docteur boo amee looy tëjee. <coughs> daanaka li mu wax dara mënuñu ko ci teg man dama ciy doole rek ne. Mm-hmm. même école bi ñuy former administrateur. Mm-hmm. jàngale fa diine dafa war a nekk. dëgg la jàngale fa yi réew mi aajowoo sax laay wax ndax léeg-léeg nit génn ci ab diplomate wala yu mel noonu dem ci bitim réew def erreur boo xam ne ci réewum wala réew mu dul sax réewum ñàkk koo xamaloon loolu moo ko waral. Mm-hmm. parce que booy jàng wàllu diplomatie li leen di jàngal bokkut ak li aju ci wàllu mm-hmm. euh, nit nit dem na def loo xam ne diine lislaam nangu fa te doon ab jullit. nit mm-hmm. ñëpp di ko soow. waaw taxaw fi béréb boo fekkee ne xamal nañ leen loolu ne lu rëy la kon bu bu demee foofu dañ seet leneen lu dafa loolu yu mel noonu ci boppam dafa waaj bàyyi xel ci gàttal daal ngir nu defar daal nit koo xam ne ku ku mooy ki suñ réew mi soxla tey mm-hmm. mooy nan itte woo tabax nit lu ëpp ni ñu itte woo tabax aw yoon akub akub immeuble mm-hmm. dëgg la doomu aadama ji la ñu war a tabax moom bu ëllëgee dana tabax yooyu te du ko toj bu ëllëgee waaye lu dul loolu danga nga tabax àdduna li ci biiram ci ab ciment akub godron tabaxoo nit mu wëlbatiku moom mooy tojaat mooy yàqaat la waaw mm-hmm. jërëjëf euh, docteur jërëjëf kon mbokk yi yéen ñu doon topp émission bi seen ñu ngi gërëm bu baax di sant docteur ci teewaayam ci jotaay bi waaye xam-xam bu yaatu bi mu fi génnee kon ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla gën koo dolli xam-xam gën koo dolli wér di ko ndokkeel itam ci euh, responsabilité boobu ñu ko jox mm. nga xam ne du bu ndaw di ñaan yàlla mu defal ko ci ndam. amiin yaa kon jotaay bi ngeen toogoon di ko topp émission bi yàlla bu mu neen. Mhm. yàlla na yàlla jàppe muy jotaay jaamu yàlla. lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla nañu xiir ci ñu mën koo jëfe juum te ñu ñaan borom bi mu mu jégal ñu ko rek. doomu aadama juum da ko yomb. xale yi nekk ci technique bi di liggéey liggéey bu rafet bi yàlla def leen mag te barkeel seeni seeni seeni projet. Mhm. kër gi yàlla soxali ko. Mhm. émission bi nag ku mu rëcc mun nga koo dabu dimanche ci seetee ci suba maa ngi leen di jox daje ajjuma ji di ñëw ba booba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. فكان ذا النظم على بحر الرجد ملتمسا فيه سدادا من عوج لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص